oh ay waay waa kër Liss Ndiago lii leen dal métti na lii métti na lii métti na lii métti na. ñëw ndey fii booy bi ñëw fi ngeen di yàq ndey suñu làmb lii affaire dëmm la. oh ay waay ay waay ay waay ay waay. lii affaire ndey dëmm dëgg la jaay ndey doole la. ñun jàmm nga leen def duñ baan duñ sàcc barki Serigne Bamba. parce que lu def du yoon. pour ñu woon heure par la heure par la force daw day am. Liss Ndiago ak Pokola ñoo bokk benn heure. ñoom ñoo ñaar ñoo bokk benn heure. te ñoo bokk benn yoon. li ñu yor. oh mais lii lii doy na waar oh lii doy na waar oh lii doy na

booy yaa ngi jooy booy yaa ngi nekk na nag lii nekk na lu garaaw nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla garaaw na. ya ko daure bir gadide gora ko jabu bala zakya ko daure bir gadide ko fari hande jabe ala khale bi lumu indi ala khale bi lumu indi ala khale bi lumu indi ala khale bi lumu indi mais image yi oh oh oh oh ay waay ay waay bis bi yàqu na waay ay waay bis bi yàqu na waay ay waay bis bi yàqu na waay ay waay ki toog si pousse pousse yuuxu ay waay jëlee leen si pousse foofu ay waay borom pousse pousse bi ay waay bu ko gaañ ay waay borom pousse pousse oh, ay waay Liss Ndiago dugg seem métti na ay waay Liss Ndiago dugg seem ñoo ngi yi ay waay ay na oh xale yi gan bàyyi leen lamb xale yi jàmm gan bàyyi leen lamb jàmm gan lañ dëkk ay waay li ma gis neexuma barki yore oh, li metti na oh li métti na métti na gaañ nañu mbër mi gaañ nañu gaañ eh, mbër mi gaañ nañu mbër mi xool mbër mi xool borom pousse mbër mi ay waay mbër mi cumbukaayu mbër mi ay waay ay gàllaajam ay lamb ji yàqu na ñoo yàq suñuy lamb policiers yi la ñooy njëkk a tooñ alhamdulilah ñoo yàq suñuy lamb.